salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di bu baax maa ngi tudd Babacar Cissé dëkk ci yow fii ci ci doomu dëkk bi. Mhm. lan moo leen seen waraloon seen taxawaay fii tey. li waral suñu taxawaay bi mooy euh, dafa am benn waa ju tudd Baye Mbaye benn promoteur immobilier bu tudd Baye mbay Mamadou Diouf Mamadou Diouf ñu koy woowee Baye Mbaye communément appelé moom moo ñëw fii nii biir Thiéwo mu ne am na fi lu tool ni quatre-vingt-seize hectares que ni moom daf ko war a lotisé fii nii loolu moom moo waral suñu teewaay bi fii jàpp naa ne quatre-vingt-seize hectares tey jii ci biir kenn koo xam ne war na ko fee mën a am ñu jox la ko ne yow da nga koy lotisé sans pour autant population bi am ci aval ndaxte tey jii nii yaakaar naa ne ñu bëri ñoo ngi ñu wala ñëpp a ngi fi toog amul kenn ku la mën a wax ne

man mako ko demandé à ce que ni manam lotissement bi bu abouté ba paré population bi ñaata lay am mune mané population bi dina am 225 cent vingt cinq ko ci gémmiñam mhm. fi ni ci terrain bi fi ni mhm. mom loolu la wax ima figurez-vous 96 hectares ñu ne ñoom da koy dak ñu ne population yow nga xamné ne avoisiné na ay mille et ñu ne léegi deux cent vingt lañ ci am ñun xéxu ñu problème mu pourcentage pour que ça soit clair ñuy am ak la ñuy ñàkkat ñun waxuñu loolu la ñu wax mooy que ne suñu suuf si nañu ko bàyyil uh-huh. nañu ko bàyyil dañuy bay ñun ay baykat lañu uh-huh. ay baykat lañu ay sàmmkat lañu uh-huh. ñun ay villageois lañ bu ñu xoolee ceewo dagg nañ ci cent hectares yoo xam ne ñu def ko usage d'habitat usage d'habitat ñu bëgg cee yokk benn quatre-vingt-seize hectares te démb ba démb rek man maa ngi dégg ne am na 66 hectares yoo xam ne am na kenn koo xam ne moom mi ngi courir derrière mairie bi pour que ñu defal leen délibération. fii ci biir Thiéw. ci biir Thiéw fii a wax mooy lem suñu dëkk bi. suñu quatre-vingt-seize hectares yi nañu ko bàyyil ñun béy kii unutul lotisi wuñu tey lotisi wuñu suba ñun ay béykat lañu dañuy béy premier carte d'identité euh, euh, photocopie carte d'identité yi ñu joxe woon photocopie carte d'identité yi ñu joxe woon mën naa la wax ne ñoom dañoo def faux et de faux hmm. faux usage de faux bi nan la demee ñoom dañoo laaj suñu photocopie carte d'identité pour que ñun ñu mën a suñu suuf sii nii nga xam ne ñoom joxoon nañu ko ñu doon koo béy hmm. léegi ci photocopie carte d'identité yooyu ñu sukkandiku ñuy wut ay lay comme quoi wa dëkk bi d'accord dañoo dañoo alors que c'est faux du mais au niveau de la municipalité dañuy ne waa Nous ñoo indi seen promoteurs yi foofu pour ñu mën leen a Nous municipalité man dama sont tellement incompétents ak ñàkk a wekk parce que man mënuma tey jii ne ñu mën wax comprendre tey jii ñu mën wax lu toll ni mairie Noto ñu ne tey dañoo war hectares bu ñu waree délibéré maanaam nombre d'hectares yu tool noonu jàpp naa ne lu mu ak lu mu dee de dee dee ñoom normalement waroon nañu mën ay conseils yoo xam ne ñu jógee mairie Notto Diobass ñu ñëw fii ñu toog ak askan wàcc wàcc woo yëpp toog ñu après ñu def seen benn procès verbal procès verbal boobu ñu jox ko le maire Alioune Sarr mais tey jii ne ana kan moo fi mën a taxaw tey mu ne 87 hectares yii nii ñu toog fii ni tey kan moo mën a fekkee benn réunion boo xam ne mairie Notto ñom dépêché nañ ay agent ay ki num tul ay conseil ñu ñëw fii ni toog ak wàcce waxtaan ak ñom ba ci woo jox leen protocole d'accord kan moko fi mëna wax amut ça n'existe pas ñëpp ñi te yaakaar naa ne délibération dafa am yoon délibération dafa am yoon tey jii bu ñu joggé tay ne dañuy délibérer par exemple ben nit fii ni lu toll par exemple ben hectare yaakaar naa ne lu mu dédé ben conseil dina joggé noto ñëw fii ni toog ak le chef du village toog ak quelques membres ci population bu mu mënulee toog ak ñëpp ñu woon carrément ne wax dëgg fa yàlla ki ñuy délibéré lii moom moo ko moom loolu moom mooy loolu moom mooy problème mooy mooy mooy mooy mooy procédure délibération normale mhm. mais tey jii ni imagine toi yow 86 hectares ñoo ko délibéré ci yow amul kenn quoi ci yow bu la mën a wax ne waa mairie ñëw nañ fii ni toog ak ñoom bokk ak ñoom waxtaan ki ñuy gis mooy lan waa ji yore GPS bi xaw ma xaw ma xaw ma xaw ma nu géomètre la xaw ma lan la ak promoteur bi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ak moom fii nii ñun gis ñu délibération chef de village bi ñun moom moo ko wax ci kanamu ci kanamu chefu destos man mii fa fekkee réunion boobu moom nee na carrément ne signé wul ak moom benn protocole d'accord man ma fekkee ko loolu noonu yaakaar naa ne am ñoo xam ne doy nañu ci seede voilà chef de village bi nee na carrément ne moom signé wul ak moom benn protocole d'accord bon ci nouveau autorité yi nouvelle autorité man li meuna wax moy le président euh, Bassirou Diomaye Fay ak son ministre Ousmane Sonko premier ministre Ousmane Sonko wax deug fa yàlla manam sénégalais dañu am suñu mom yaakaar te ñu fekkoon fi atamit ben affaire bo xamné ne na ni ne ñëpp nañ ci seen bët. gis nañ ne wax deug fa yàlla def na ben descente ñëw na ba au niveau de Thiès mom mu gis problème bi am ci Mbour 4 yaakaar naa ne nag problème bi gën a garaaw Mbour 4 am na ci bir village

mbay moo ko financé kii nii mën naa wax ne jàngam mbay moo ko financé kii ni man naa wax ne liggéey mbay moo ko financé waa ak ñu bari waa tey jii ni buñ toogee tey jii ni ñu ne mbay moom noonu nga xam ne moom moo ñu moo ñu mos a yore bañ toll ni ñu toll ni ñu ne léegi suuf soo noonu dañ koy nangu jox ko usage d'habitation maanaam usage bi ke maanaam tey jii ni boo xoolee nan lay nan lay nan nan lay demee da ngay gis euh, waa ji ñëw moom mooy waxtaan ak waa dëkk bi à chaque fois bu ñu demee mairie waa mairie dañuy naan ne dem leen ngeen ngeen négocier quoi lan la ñuy négocier quoi ñun ñu ngi lancé benn ultimatum ñoo ngi ñu ngi lancé maanaam ñu ñu jël témoin ñëpp na ko ñëpp yëg waa ji nee nañ ko fii nii persona non grata bu mu teggati tànkam biir ci yow bu fi tegatee tànkam lépp lu ko fi arrivé na xam ne na ko moo ko teg boppam. est-ce que commencé lu jaay ay terrain fii. bon ñun am nañ ay yenn information que moom commencé na jaay ay terrain biir ceew mais nag amuñu man dañ ñoo ngi koy dégg nii. léegi ñi jënd nag. ah ñi jënd terrain fii. ñi ci jënd na leen leer carrément ne seen i terrain dañ koy perte. dañ koy perte parce que fii ak lépp luñ ci mën a def ñun waa Thiéwa du ñu bàyyi. Hmm. gis nga xeex bii ni combat bii ni ñun dem gendarmerie rek ñàkk bakkan moom moo gën a tuuti ci suñu maanaam ci suñu détermination. moo ci gën a du ñu bàyyi tey du ñu bàyyi ëllëg si jërëjëf ak lépp luñ fi mën a def nag ñun duñ bàyyi bàyyi ëllëg quitte ñu ñàkk suñu bakkan ci suñu suñu boo defee noonu ñu xam ñun dañoo jeex ndax suñu def lañ doon xeexam voilà ñu jàppe ko noonu Waziri TV, Nairobi News.